salaamaaleykum mbokki suñu Actu TV amati mbégte gu yaatu yaatu di feggoog yéen ci xibaaru tey ci kàllaama kocc tey ci àllarba yem ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre dañuy doore xibaar yi ak lu ñeel audition bu Adji Sarr bi nga xam ne mën nañ ko ci sobriété ni ki démb Adji Sarr dal dinay dem teewlu ji kàddu yi le doyen des juges Oumar Maxam Diallo ci laaj ak tontu goo xam ne jot na ko siq ak moom audition boo xam ne yàggul. lool tax na nag ñu daal di samp ay laaj yu bare bari ci boobu lépp audition la ci jota rek daal di fuset li waral ñu daal di óolu aji sax ni ki démb bokk na ci audio yi nga xam ne rek euh, Baye Mbaye MC Niass jox na ko le doyen des juges Maham Diallo ci jour bi ñu koy auditionné yooyu les audio am na loo xam ne sax jotoon na daal di fuité bañ ci doon wax liste yu seize yoo xam ne jot nañoo rek seq ak ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr lu yàggul dara ñaari fan jàpp ñett Baye Mbaye MC ginnaaw bu ñu ko auditionné mu daal daal di amal ab déclaration di yëy yàbbi ci yooyu les audio yu toll ci juróom benn ci ay audio Adji Sarr itam lu ni mel démb ba ñu ko teewloo ci de doyen des ma xam Maham dal daal dinay confirmer appel ba nga xam ne jot na kaa daal di séq ak Baye Mbaye MC Niass ci dal di wax itam ci audio yi nga xam ne toll na ci juróom benn ci ay audio la mu jot a xamle moom moo di dafa doon jéem a rek tëgg euh, wëndeel ki la di Baye Mbaye MC maanaam ak ndëgg sërëx la ko tegaloon ndax moo di mariage maanaam daal di koy jël soxna ci diggub coow li loolu la Adji Sarr teg ci loxoy le doyen du juge Oumar Maham Diallo waaye tam beneen bu laaj boo xam ne sénégalais yi jot nañ ko caa samp rek ndax Adji Sarr mi mu ngi ànd ak xelam ci lu muy wax ci dossier boo xam ne dem nañu ba dal di mel ni lu xam ne yëf yooyu yëpp ab politique moo ko complot la ndax bu ñu li nga xam ne Baye Mbaye MC jot na ko rek daal di addu jëmale ko ci mbir maak la ca jot a xew yëpp dafay mel ni aji Sarr ma nga teg fa mu teg tànkam ba léegi rek di wax ne dañu ko rek daal di violé te ki def mbir moomu du kenn ku dul Ousmane Sonko. violu Adji Sarr boobu la ñuy desandi yeneen i yu ca jot a yees Alfousseyni Gaye di docteur bi nga xam ne ci guddi gi mbir mi amee maanaam ci guddi gi Adji Sarr ji ñee Ousmane Sonko viol moom moo consulté woon Adji Sarr ci ab rapport médical boo xam ne jotoon na ko rek génne. ginnaaw bu benn ab xaritu avocat mu jotoon ko booleeg aji Sarr ci bés boobu ngir mu daal di koy consulter ndax Sonko yegg na ci kawam déet rapport ba la cay jot a génn moom Alphousseyni Gaye mu dëggaloon ni ki Adji sax ak kenn yeggul woon ci moom ci vingt quatre heures yooyu maanaam tey itam li ñeel imenam perte na ko bu yàgg moo di ak ndawam dal dinay deñ bu yàgg-yàgg tax rek fi ne muy dund situation bu métti métti moom docteur bi lee di Alphousseyni Gaye ginnaaw sax bu mu mujjee génn ci Kéwoulo janook Babacar Kéwoulo di leeral situation bi li nga xam ne moom moo di li muy dund ci jamono jile depuis que nag ñu commencé di démasquer yee ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr ak ñamu àndal moom Alfousseyni Gaye nee na dem na ba ak dundam dara wóoratu ko ci ndax dañ ko faat am déet ndax saa bu xëyee ñi ngi koy topp waaye itam loo xam ne mi ngi koy subir muy lu métti métti ay nit yoo xam ne jóguñu ci di ko xoqatal di koy menacer waaye itam ah, di koy topp saa su nekk ci otoom di koy mbëkk ah, semaine bu yàlla mënul toog rek te kenn mbëkkul otoom waaye itam bëgg sàcc li nga xam ne moo di téléphone portable am ah, ci ay commentaire yoo xam ne depuis que vidéo boobu daal di génn ba léegi def li nga nga xam ne moom moo di buzz vidéo bu mujjee viral sénégalais yaa ngi laajte ndax réew mi ñu doon wax di Sénégal am justice li nay mel euh, Alphousseyni Gaye di ko subir justice la wala déet nee na nag daal dinay o ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite euh, lu jëm ci wàllu ordre ordre de médecin ngir rek ñu dal di koy euh, jàppale ndax situation bi ak li nga xam ne moom lay dund jamono ji bu ñu ko jàppalewul rek du baax ndax bakkanam mu ngi ci xortu gerte te dara waralu ko lu dul rapport bi nga xam ne moom la daal di génnee ngir leeral mbir yi nga xam ne moom mu amoon ci guddi gi Adji sax ñëwee woon ci moom di ko wax ne que naka daal di defal li nga xam ne moom moo di ay analyse waaye itam lu jëm ci wàllum prélèvement ak yenn ci ay mbir yoo xam ne jot nañ ko rek dal di fësal ne Adji Sarr du woon jànk waaye itam kenn yeggul ci moom mbir ma complot la boo xam ne politique rek moo ko laal ci mbirum Adji Sarr la ñuy ah, desandi ah, ginnaaw li nga xam ne moom moo di mbir mi ak fi mu yegg tey jii tax na rek ah, Gabrielle Kane itam kenn gisu ko fan yi ma nga ci réewum États-Unis dafa daw rek dem wala dafa dem faju ji ndax bu ñu xoolee mbir yaag nañ koy càmbare moom Gabrielle kan bi muy jógee Sénégal dafa wax ne dafa dal di feebar waaye ay vidéom yoo xam ne jot naa ta tasaaro ci réseaux sociaux yi ñu seen Gabrielle Kane ci États-Unis mu sol ab manteau waaye tam nekk ci ay boutique di def ay euh, shopping am euh, li firndeel ni dara dalu ko dafa dem rek dal di noppali jikko ji njëmën kaa tuddee noonu wala mu daw dossier bi nga xam ne euh, ñu ci baree bari ci sénégalais yi ñu ngi tàmbali di ci def ay gëstu yu yaatu yaatu waaye itam ak li jot a ci lu ñu mën a rek li nga xam ne moom moo di situation bak famu mu toll. mbiru Gabriel Kane la des ginnaaw bu ñu gis si ab policier bu mbécc xale bu jigéen mbécc mu métti métti ñu dal koy filmer vidéo boobu itam ñu dal réseaux sociaux yi Gabriel Kane ma ci États-Unis def na post di ñaawlu geste bi nga xam ne policier boobu def na ko dal di yëkkati loxoom teg ko ci jigéen mu di violence faite aux femmes mu dal di nag attaqué ñi nga xam ne ñoom ñoo di takk der ba noppi interpellé le ministre de l'intérieur di Antoine Félix Diome waaye tam directeur général bu police mu ne nag na jot a yëy yàbbi ci mbir mi dal di yëkkati ay sanctions yu méttee métti teg ko ci kaw policier bi nga xam ne moom moo violenté jigéen mu ne nag jógul ci combat bi nga xam ne ci la nekk kon ngir di jàppale jigéen waaye itam di dagaan baatu askan wi ci jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñuy wéy di violente saa su nekk comme nañu ko mën a rek daal di tuddee ab féministe boo xam ne tey la gën a engagé wu ci di jàppale jigéen ñi nga xam ne ñu ngi subir ay violence yu métti métti photo bu Messi ak Sadio Mané wër na àdduna ginnaaw lu matul vingt quatre heures ci ab photo yu ñu posté mu def ay millions de vues Argentine gu jëlu coupe Messi fanaanoo coupe ba teggi jabaram ak i doomam ca kaw lawal ba fanaanoo ko noonu dañu ko dal di posté collé ko ak photo Sadio maane bi mu amaloon ci Sénégal bu mu jëlee coupe d'Afrique ba Messi mooy toppandoo Sadio Mané ci boobule photo tax photo boobu bañu ko collé ba daal di koy passager mu dal di wër àdduna ñu dal di wax ci May Ndiaye Seck ak visite ba nga xam ne amal ne ko ci kër Pape Diouf dem dal di koy seeti manjaay Ndiaye muy waajal événement xelam daj Pape Diouf dal di koy seeti noonu rek la ñu partagé boobu lépp vidéo di wax ne May dafa dal di jàppe ki nga xam ne moom moo di magam di uh, Wally Seck dem rek cek nga xam ne moom moo di uh, Pape Diouf ñuy laaj ndax juboo gañ doon wax ci seen biir dafa amulam déet wala May ci boppam dafa rek njëkkee ci Pape Diouf war a jëmee ca Wally wala la muy séq ak Wally Seck du uh, foo xam ne rek uh, caméra dina ko fekkee ba war leen mën dal di samp yooyu lay caméra ba ñuy waxtaane war a mën a rek uh, fu set ci askan wi le président de la république Macky Sall mi fas yéene dem ca Tambacounda ñeenti bés yu mu fa war rek dal di amal li ko waral bokk na ci inauguration de la route de Tamba Kidira gi nga xam ne moom la ñu rek dal di inauguré waaye itam champ militaire yu Goudiri yi nga inauguré waaye itam journée de l'élevage bi nga xam ne prévoir nañ ko le 6 ba le 29 décembre bi ñu nekk ca Tambacounda président Macky Sall war rek daal di def ñeenti guddi yoo xam ne mu ngi koy seq ak responsable yu APR yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci le gox ci mbirum Benno Bokk Yaakaar la ñuy desandi ak wa Benno Bokk Yaakaar gi amalam ndaje ca hôtel King Fahd Place samedi bi ñu dëgmal bu ñu sukkandikoo ci les écoles la ko waral mu di prochaine présidentielle gi nga xam ne fas yéene ko rek daal di tëgg le décembre euh, fas yéene nañ kaa tëgg ci janvier deux mille vingt trois euh, vingt quatre gi nga xam ne ci la ñu dëgmal kan rek mooy nekk candidat bu benn Bokk Yaakaar comme nañ koy xamle euh, ci fan yi ñett jàpp ñeenti weer yi ñu weesu waa Benno Bokk Yaakaar ne nañu seenub candidat président Macky Sall waaye itam moomu leen ndaje fas yéene nañu fa rek dal di waxtaanee. lépp lu jëm ci présidentielle yu mille vingt 2024 yi mu mel ni ñoom ci boppam fi ne li askan wi di wax dégguñu ko no au troisième mandat no à la candidature du président Macky Sall waaye itam nu ne fa faire ne fa faire plus de euh, trois deux mandats consécutifs dal di nañuy jël loolu gas ba mu xuut dal di suul ne président Macky Sall bu ko wi soxla dañu leen koy jox par la force waaye itam lu mu laaj rek dañu koy def ngir président Macky Sall nekkaat président en 2024 mbokk yi ñu doon teewlu ci suñu Actu TV jërë ngeen jëf ci ànd gi ngeen doon ànd ak ñun way leen di ànd ak ñun ci suñu ay programme ëllëg incha allah la ñuy àndaat ak yéen ci beneen ub jataayu xibaar jaa ngeen jëf ñu fanaan ak jàmm